ñu leen di wax di ñaan yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy siifoon ngeen wéy di abonné ci seen bi tey partage vidéo yi te di ko sem tey joxe sa commentaire kon nekk ñu daal di ñëw andil leen histoire bi. man nag sama dund dund naa ci lu metti loo xamante ne metti na lool ndax man dama nekkoon koo xam ne ab dongo daara laa woon bi nga xamante ne jàng naa ci daara ji ba noppi ba def lépp loo xamante ne war naa koo def ma daal di dem daal ñibbi soobu ci li nga xam ne mooy liggéey waaye fu ne dugg naa fa ngir di wut liggéey daanaka lu ci bari ci ay yoon la ma daan fekk léeg-léeg daanaka ma daan dem ay dëkk yu bari yu wuute yoo xamante ne ginnaaw bi nga xamee ne am naa ci lu ma jàpp moom laa daan def ndax liggéey bi ma daan def lu ci bari mooy dama daan jënd di jaayaat di ko yóbbu ci ay dëkk waaye dafa am bis ma jënd samay bagage daanaka jële ko ci barab war koo yóbbu ci barab jaay ko waaye nag bagage yi bi nga xamante ne jënd naa ko dafa am ci horaire boo xamante ne ci laa dugg ngir daal koy yóbbu yàlla dogal bi nga xamante ne dugg naa ci li nga xam ne mooy horaire boobu nga xam ne ci lan war a daal moo war a daal yóbbu sama bagage yi yàlla dogal ñu dugg si di dem ci yoon yi ba mu yàgg ñu daal di ñuy arrêté ci yoon wi ñun ñëpp daal di taxaw daanaka ñi nga xamante ne ñoo ñëwoon di contrôler li nga xam ne moom mooy biis bi daal ñuy wàcce ñu daal di wàcc ñu dugg ci biir oto bi di xool bagages yi bi nga xamante ne ñoom ñu ngi visite bagages yi xam naa xëy na du ñàkk dañoo boole walla nu deme nu kenn xamul waaye daal man jaaxal na ma waaye fépp la nu visite bi nga xamante ne ñu ngi xool ba agsi ci benn saag boo xamante ne bi nu ubbee saag bi daanaka dañ cee fekk dorog boo xamante ne moom moo ci daal di nekk ñu daal di laaj kan moom moom lii waaye kenn nanguwula daldi wax waaye man maa ngi toog nale jàpp ne man moom kenn xalaatuma di ma jéem a laaj wala ma ma koy jéem a fooge wala dara maa ngi toog ne boole ma sama bopp ci programme bi waaye bi ñu laajee laaj kenn nanguwuta wax ñu daldi jubal si fi ma nekk fekk am na ñu fi toogoon waaye man defuma lenn lu dul maa ngi yor sama téere sëgg ci di jàng ndax man léeg-léeg sama ay voyage lu bari wala ma nekk fenn toog damay yor sama téere di jàng bi ñu jubal see ci man nag man dama xamul ñoom dañoo tiit dama xamul ñoo ko ci jublu dama xamul dara waaye ñaar ñu toogoon foofu daan ñu daal di laajte kan moom moom saag bi ñu daal di may joxoñ daan kii de lañ gisoon mu yor saag bu mel noonu man bin ko waxee sax damaa def ay ree sama àdduna jëpp daal di tukki ma jàpp ne ñii moom xanaa dañuy kaf rekk waaye ñemewuñoo dëggal ndeke yoo dañu daal di dëggal ñu daal di may jël daal di may jàpp daal di wax ne nii rek ngeen di def bu ngeen ñëwee di mbubboo diine ji ku leen gis jàppe leen ay nit ñu baax ndek ay trafiquant yu mag ngeen ñu bon ngeen lu ne ñu wax ma ko daal di may jàpp foofu noonu daal di may yóbbu te liñ may waxal man taqewu ma ci laalewu ma ci jegewu ko xawma lu mel noonu te man mosuma koo gis man xetu poon sax bu ma xeeñee sama bopp bi di met waxantuma laa may xam lu yàmbaa dama jëllale naan damay jéema def ay waxi dorog ak yu demee noonu ñu yóbbu fi nga xamante ne moom mooy ci kaso bi daal ma fay tëj daanaka yàgg naa fa lool ndax tardel nañ ma fa daanaka su ma la waxee tëj nañ ma daanaka juróomi at yoo xamante ne nekk naa ko ci kasu bi ci loo xamante ne taqewu ma ci laalewuma ci defuma ci dara daanaka dund naa ci kasu bi diir bu yàgg mu doon lu metti lool ci man daanaka tardel nañ ma juróomi at yoo xamante ne dañu ma daldi mujj bàyyi daal di may setal daal ne yow defoo dara liñ lay waxal taqe woo ci laale woo ci benn yoon daal may tardeel ay at yu bari yoo xamante ne kenn xamul at yooyu daanaka lan laa ci mënoon def ak lan laa ci waroon a a am waaye it may sant yàlla ci loolu bu baax a baax ndaxte dama mujj rek xam ne gëm yàlla lool xam ne lépp lu yàlla def ci jaam bi rek am na lu mu ci namm ndax li ma ci sant yàlla dama jàpp ne mission bu ma sunu borom jaarale woon la am lu ma waroon liggéey ndaxte day diirub loo xamante ne maa ko nekk ci kaso bi ñi nga xamante ne ñoom laa nekkaloon ñu ci bare bari ñi jàngal naa leen bañ fari ji ñi jàngal naa leen banu sori te ñu ci bari dama leen daan waar di waxtaan ak ñoom di leen génne ci li nga xamante ne ci lañ nekkoon ba tax ñu andi leen fii ba nga xam ne bari na ci ñoo xamante ne ci lañ waaroo ba bàyyi lépp loo xamante ne moom lan doon def waaye it xame naa fa lu bare bare bari loo xam ne yokk na ma xam-xam ci àdduna ndaxte day gis naa fa ñu bari ñoo xamante ne daanaka dañu leen a tooñ andi leen fa tëj leen xame naa fa ne réew mi bari na fa ñoo xamante ne ñiy gën a sonn ak ñiy gën a yàgg daanaka ñu ci bari du ñu def dara ñenn ñi dañ leen di tooñ ñi nga xamante ne ñoo ëpp lu ñuy def te daanaka alal ju bari ñoo koy luubal wala leneen man nañu fa bañ am ab diir muy loo xamante ne kenn xamul lu mu doon waaye tey jii fi nga xamante ne daanaka fi laa nekk ñu ci baree baree bari bët yi may xool mooy kii ndagate jàngam meeg li mu def lépp daanaka daf daan mbubboo loolu waaye da cee raxoon leneen daanaka ñi nga xamante ne ñi gëm gëm nañ ñii daal di weddi waaye mu àdduna ak loolu moo ànd waaye it sant naa ci yàlla xam ne mission bu ma sunu borom doon dox loola ndax tey jii nga xamante ne génn naa bari na ñoo xamante ne nekkoon naa fa ak ñoom ba tey jii ñu ngi wéy di ñëw di ma seet te weneen melokaan lañ mel woo xamante ne dañoo jaar ci yoonu siraatal mustaqim te loolu jàpp naa ne su ma demutoon foofu loolu du am waaye li ñuy wax mooy nanu bàyyi di tuumaal as gor wala jàpp doomu aadama tëj lu ko ci loo xamante ne yow léeru la dara taqewu ci laalu ci wala da nga ko ëpp doole wala nga ëpp ko alal wala wan ko nii laa ba tax nga jàpp koon daal di ne ko ràjji daal di koy tëj te sóoraale woon a ëllëg yowmal xiyaam day dina ñëw te suñ borom dina leen àtte kon nan bàyyi xel ci jëf yi bu baax lépp lu ñuy def ñu ci suuraale suñ diggante ak sunu borom. di ñaan ñëpp ñi nga xamante ne tëj nañ leen ci kaso yi sunu borom génne leen ci jàmm te jubal leen te képp koo xamante ne mos nañ la fa tooñ rek tëj la yàlla na sunu borom daal di leeral li nga xamante ne mooy dëgg gi jërë ngeen jëf.